yéeg si leen ak jàmm ci Pastef Média TV chaîne des patriotes abonnez-vous politique ñeel opposition bi mu di ab leeral ci benn post bu ñu defoon suñu page Facebook jëm ci jubóo gi dox diggante Barthélémy Diaz ak Moussa Diop doonoon fi directeur général de Dakar-Dem Dikk tekki dox mbir yi di Ousmane Sonko bëriwul nag li ñuy wax ci opposition bi ndax dafa am benn mbir bu ñu gëm mooy ki ñu alalu Sénégal jox ko budget jox ko caisse noire ne ko jëfandikoo ko nu ma neexee te doo rendre compte jox ko kaaraange gu mat sëkk ngir dara bañ ko dal ba buy génn ay motard ñoo ko escorté wóor ko ngir xaalal ko yoon kooku mu mënoo ko accordeel même traitement que ki nga xamante nii ci opposition bi la nekk mais dafa am benn mbir bu am aussi mooy li concerné intérêt Sénégal maanaam coow loo xamante nii dañ ci tudd mbirum suuf goo xamante nii Sénégal moo ko moom ndax Dakar dem dikk du Dakar dem dikk bu Macky Sall du Dakar dem dikk bu APR ñun Sénégal ñoo ko moom bu dee nag ci bërëb liggéeykaay boobu noonu ki ko jiite woon di Moussa Diop ñu teg ci kam ay tuuma ni dafa jébbal waa APR ab suuf soo xamante nii Sénégal ma ko moom ngir ñoom waa APR def fa seen màkkaan siège boo xamante nii bañ koy tabax dañoo tëj kaso Barthélémy Diaz loolu lépp daan ci ñëw parce que dafa lankoon ni du signé permis de construire bi ndax suuf sa nañ ko joxee baaxul ñu daal di koy tëj kaso woo ay takk der ngir ñu sécuriser travaux yi maanaam ñoom waa APR ci lëndëm lañ doon dox ndax nguur ak ni mu amee doole bu demee bay ragal benn opposant ab maire bu koy tëj ngir tabax seen siège kon problème bu rëy rëy am na léegi Barthélémy Diaz tuumaal kii na woon directeur général Dem Dikk ne dafa jox waa APR ab terrain gratuitement ngir ñu tabax boobee siège terrain boo xamante ni valeur am toll na ci un milliard yemu ci ñu tuumaal ko itam moom Moussa Diop ni dafa jaay waa Diamond Bank terrain wu Sénégal jaay aussi ab terrain ambassade bu Chine donc loolu lépp buñ ko tuumaalee doomi aadama yoon la sénégalais yi xam ni mu demee te ñu reetaanlu ci mbir yi lu ñu yéem ci dernier jour yi ak cas bi mooy jamono gi Barthélémy Dias doon kaas loolu noonu ñun partagé woon nañ vidéo yi lépp bu ngeen demee ngeen vérifier xool commentaire yi ñëpp àndoon si ne mbir yi dafa war a leer ndax waruñu jël suñu senegal jël suñu suuf di ko jox waa APR tey am na ñuy tagg Moussa Diop ndax plainte bi mu retiré démb ñoom ñoo ko doon saaga parce que jamono jooju Macky Sall la àndaloon ñun ba tey accusé wu ni Moussa Diop moo defam déet waxuñu itam ni Barthélémy Diaz moo dëgg ci mbir mi mais dem ne na leer te mbir yi mënoon naa leer alalu Sénégal bi waa APR tabaxee seen siège dañ ko jëndam déet mënoon nañ ci am lu wóor a wóor ndax gannaaw ba Barthélémy Diaz defee accusation yi Moussa Diop dafa porter plainte pour diffamation maanaam yoon moo waroon àtte ci ndax tuuma yi dëgg am déet ñun ñëpp kon li wër te mooy ci affaire bii nii li leen boole du problème personnel comme ni ñu ko bëgg a gëmloolee ñun loolu la ñu bëgg leeral sénégalais yi pour bañ ku leen demal seen xel ñii mbiru Sénégal moo leen boole muy suñu suuf yi nga xamante nii dañ ko jox waa APR xamuñ dañ leen koo jaayam déet ak suuf yi ñu ne dañ koo jaay waa ambassade bu Chine ak benn banque bu naan Diamond Bank kon gars yi bu ñu naxante suñu biir bërki démb ñëpp a doon sàkku ñu leeral suufu Sénégal gi ñu séddoo ci problème yooyu yëpp nguur gi lànk ne du ci topp benn dossier ne ci mbiru Dakar Dem Dikk bi ñu am chance mu tàbb ci loxoy yoon sénégalais yi war a xam fu seen xaalis dugg ñu daal di xëy bés dégg ni Ousmane Sonko woo na ñoom ñaar këram ngir jubóole leen kañ la leen jubóole bañ ne suba la ñoom ñaar di taxaw ci kanam yoon ngir leeral alalu Sénégal gi ñu ne dañ ko jox waa APR maanaam ñun amoon nañ possibilité xam ci dossier bi lu leer a leer te loolu lañ doon xaar ngir door cee àddu parce que bu ngeen seetloo depuis coowal Barthélémy Dias ak Moussa Diop mosuñ ci àddu dañ doon xaar yoon def liggéeyam bu dee Moussa Diop dafa may suufu Dakar Dem Dikk waa APR ñu daal di leen di vilipande comme ni ñu ko defee ci yeneen sujets yi sénégalais yi xam bu dee ni def leen koo jaay ñu mën a xam suñu koppar fan la dugg mbir yi nii dafa demee mais dafa mel ni dañoo këpp suñu yalwaan comme ni ko xale yi di waxee li ñu waroon leeral mujjul am. ndax Moussa Diop après bi ñu jubalee la demande ay avocat am ñu retirer plainte gi nga xamante nii defoon na ko kon lunaar yi nga xamante ni doon nañ ko dëkk ci terrain bi ñu ne état du Sénégal moo ko moom te Dakar dem dëkk jaay ko waa APR mu am itam terrain bu ñu jaay ambassade bu Chine am beneen bu ñu jaay benn banque bi ñu naan Diamond Bank loolu lépp tey France daal la dem sénégalais yi duñ ci xam dara ñun bu amee lu ñuy kaas di ko réclamer lii la. am na nag ñoo xam ni comprendre nañ fi ñu waxee parce que Sénégal kese moo leen ñor am na ñoo xam ni itam dañuy par parloo maanaam mbir mi bu leen arrangé ñu appuyer bu dee ni arrangé wu leen ñu mel na ku xamul wala di faire semblant ñun ñooñu taxul ñuy wax moo tax nag ñu dolli di leeral Sénégalais yi nga xamante ni ñoom xamul te bëgg nañ leen gëmloo ni mbir mi problème personnel la alors que mbiru Sénégal moo jur coow lii dossier bi mun na leer seen bopp. ndax li tax mbir mi intéressé woon ñu mooy Barthélemy Diaz waxantu woon maanaam tëbbul woon rek accusé Moussa Diop dafa génne ay preuve yu leer a ci benn émission bu ko Maïmouna Ndour Faye dalalee woon. mais suuf bi Dakar Dem Dikk moomu ko lii mooy état droit réel état droit réel au 24 avril titre foncier numéro xoolal kan mooy propriétaire. état du Sénégal. état du Sénégal mooy propriétaire Dakar Dem Dikk du propriétaire. waaw donc naka la ko Dakar Dem Dikk di jaayee. Dakar Dem Dikk amul droit jaay suufam ambassade de Chine amul droit jaay suufam Diamond Bank amul droit jaay suufam APR Diamond Bank xam nga seen un milliard trois cent dañ ko génnee ñu gis ko wante man Dakar Dem ak APR. APR musul génne un milliard c'est faux Dakar Dem Dikk musul encaissé un milliard u APR parce que musul am leneen li nga xamante nii moo gën a garaaw te Barthélémy xam xamle ko mooy ndekete APR dañoo tabax seen siège te amuñu permis de construire loolu mi ngi ko xam ne ci émission papale gars yi daal di koy jaay doole ba tabax siège APR bi nga xamante nii ci localité am la bokk président Macky lu xew dama na njëkk a wax mënuma ko signé ndax lii gars yi nekk di ne non Barth bëgg ko signé ndax mbiru politique. après moi ma affaire Khalifa Sall parce que il faut dire que quand j'ai dit que du ma ko signé mosuñu fa teg brique toog naa jàkkaarloo ak ñoom presque at teguñu brique parce que xam nañ ma suñu tegoon brique ma ñëw toj ko. te su ma su ma leen waxee dama koy toj dama koy toj ñu bàyyi nag dama ma dugg kaso ñoom nag ñu dugal ma kaso parce que dama waxoon ci mbiru procès Khalifa Sall. dama ci joxe woon suma xalaat. Ah, kon yow instant bi ñu ngi doon kese lañ commencé tabax. njëkk dugal kaso ma tëdd kaso juróom-benn weer ci juróom-benn weer la ñu tabax siège u APR ci guddi teg gendarmerie te gendarmerie wakaam ñu ngi may dégg man Macky Sall xam na ma su ma nekkoon ci bi du tabax siège u APR jaral na ma sax ma dem ci kaso wante du ko tabax. gannaaw kàddu Barthélémy Dias yi nii. ki ne woon Dakar Dem Dikk di Moussa Diop te jox waa APR suuf si nga xamante ni fa lañ tabaxee seen màkkaan moom itam mu daal di indi ay leeral joxe itam ay preuve ba tey ci émission Maimouna Ndour Faye balaa ñuy jaay dañoo def expertise foncière mooy tool rek di brader kii expertise la fait par un expert judiciaire évaluateur immobilier agréé par les cours et tribunaux le prix de cession mi ngi nii prix de cession en bleu un milliard gis nga même les chèques je les parce que coow laay xaar suba premier chèque de banque 600 boobu di ko euh, complété ko par un chèque de 178 millions la copie du chèque est là 178 millions plus 600 defal calcul bi balaa may yegg balaa may pare. 778 millions. lu ci def 220 220 c'est ça hein? attestation également de 222 millions boo ko ci yokkee le tout ñu jël déposé ko ci compte dem dikk 222 millions le tout ça fait 1 milliard ça c'est mu ne amul benn quel est le notaire qui a pas foo gisee notaire ci dossier bi je le cite qui a payé cet argent et devant quel notaire ça c'est pas un acte notarié. de Tamaro Seydi. non non non déglu ma rek kii c'est pas un acte notarié c'est pas Tamaro Seydi ça. maa leen di personnaliser. maître Moustapha Ndiaye. dama ne. bu njëkk bi Tamaro xaaral ma ñëw man ce qui m'intéresse c'est des gens assermentés moi je suis avocat quand j'ai commencé à travailler j'ai prêté serment un policier il prête serment un notaire il prête serment. mais bu ñu sukkandikoo ci Barthélémy Diaz acte notaire bi nga xamante ni Moussa Diop joxe na ko baaxul. notaire bi nga xam ne ni moo certifié l'acte mi ngi nii notaire bi nee na la dite session waxul la vente session session la wax session session. est conclu moyennant un milliard payé directement et hors la comptabilité du notaire sous-signé au Sénat naka la notaire gisul muy certifié naka la notaire mën a certifié te gisul donc lii mooy problème bi entre Barthélémy Diaz ak Moussa Diop bu ngeen seetloo dugguñu sax ci kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni ñu ko doon jokkalante ñun intéressé wuñu li ñu ñor mooy dossier bi nga xamante nii alalu Sénégal moo làkku ci ginnaaw Barthélémy Diaz moom li ko taxoon jóg mooy sàmm alalu Sénégal bi mu jàpp ne waa APR ñu ngi ko saax-saaxee ñun ñëpp doon ci jàppale Moussa Diop moom itam en tant que ku ñu dénkoon ndombal tànk bëggoon itam setal deram setal itam deru waa APR bi nga xamante ni dañ ne dañ leen jébbal suufu Sénégal ci lu jaarul yoon te am na ci plein droit mais li Sénégalais yi war a xam mooy ñoom ñaar